awuusu billah bismillah soxna Mame Faty ñu ngi lay fay euh, te di la jaajëfal di nuyu waa 24actu yëpp ci jotaay bu am solo bi ngeen di def tudde ko jotaay koor di la sant di la gërëm tey émission bi ak jotaay bi. wuuru koor dafa war góor war jigéen war mag war ndaw war ab gor war ab jaam kon wàccul kenn. waa koy génne soxna Mame Faty dañoo wax ni na ko génne bu korite wi desee ñaari fan su fekkee koor gi des na ñaari fan am ñu ni déedéet su desee benn fan mën na koo génne am ñu ni déedéet weeru korite wi feeñee ci guddi gi la koy génne am ñu ni déedéet na ko génne bu ñu noddee fajar ba julli ji ba ñëw bala ba julli fajar bala ñëw julli julli it ci diggante boobu na ko génne ñuy nag bi gën mooy boobu bi nga xam ne yaa ngi koy génne ci bala ñoo julli ji julli it mooy bu ñu jullee suba pare nga génne ko joxe ko waaye mën nañ koo génne lu jiitu ñaari fan ci korite mën nañ koo jiitu génne jiitu benn fan mañ nañ koo génne bu ñu euh, jullee timis ba pare rek jant bi sona ñu julli timis ba pare mën nañ ko génne waaye mën noo bàyyi itam bu julli fajar pare génne ko boobu nag lan wax ne mooy bi gën koo xam ne ab dundam yow la war yàq ko a génneel képp koo xam ne ab dundam yow la war yàq ko war a génneel donte nekku ci kër gi su fekkee yaa ko war a dundal rek yaa ko war a génneel su fekkee nag moom ci am nee na la mën naa koo génneel sama bopp wàcce la ko amul problème waaye yow mi borom kër gi borom kër moo ko war a génneel soxnaam war koo génneel ay doomam war koo génneel ñi nekk ci biir kër gi te mu war leen a dundal nga xam ni seenu moomeel ci loxoom la nekk moo leen ko war a génneel ni ñu koy génneel soxna maam Faati dañoo wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga arbaat am daat la ñu ñeenti mudd mudd nag soxna maam Faati mooy loxo boo xam ne rëyul lool tuutul lool ñu ko ba mu fees ak ceeb ñaari loxo ngay boole ñaari bari ci loxo nga boole ko nii def ko ba mu fees ak ceeb nga sotti def ko bi ñeenti yoon waaye loxo boo xam ne borom ruyut lool waaye borom tuuti lool loxo yi digg doomu mu tawasit bu ko defee ñeenti yooyu mooy am daat moo lay wax champ wala arab wax champ ñeenti yooyu nag moom nga génne par bopp ñeenti am daat mu ñeenti mudd moom la ñu génne par bopp bu ne waaye su ko defee ñeenti mudd yooyu boo ko xaymaa ñeenti boroo ko xam ne mën naa doon ñaari kilo ceeb ak liibar ñenn ñu ni mën naa def sax euh, ñetti kilo am ñu ni ñaari kilo waaye laa kulli xaalin ñaari kilo ceeb doy na. Euh, bu fekkee ci xaalis tam man sa ko cee génne ci xaalis donte yonante bi sallallahu alayhi wasallam génnewu ko ci woon saxaaba yi ànd moom génnewuñ ko ci xaalis. li tax ñu war ko mën a génne ci xaalis bis boobu day bis boo xam ni yonante bi sallallahu alayhi wasallam ci bëgg mooy ñu dundal ci fuqaraa yi ak masaakin yi xam nga soxna Maam Faati du yàlla mukk ñu ni dañuy feetu korite soxna maam di feetu moog boroom këram nu leen neexe gis Ousseynou Ndiaye gàddu peenam ci mbedd mi di wut lu feetoo xam nga loolu neexut. te ñun ñëpp ñu nekk ay jullit. yonent bi noonu bu ñëwee na ngeen fexe ba ñu ñàkk sax bu ñu yëg ni feet gi kenn war na cee ñàkk. mooy yéen ñi am na ngeen jox ñi ñàkk. bu ko defee yéen ñëpp yéen a ciy bokk yam ci bis boobu. ñu waaw kon kay génne ko xaalis war naa mën a dagal ndax xam nga bis boobu ci senegal gi boo xoolee tey kenn ku ci togg ceeb amut. ab añ ceeb. Mm. ci bisu korite. est-ce gis ngeen ko fi. amut kon ñu ni nanu génn xaalis jox ko ki nga xam ni mooy ku ñàkk mooy miskin bi bu ko defee mu mën cee préparer koriteem ndax boo ko joxee ceeb itam mm. day dem jaayi ko jënd ci yàpp ak pomme terre ak cay dem mm-hmm. ñu ni kon mën nañ koo génne xaalis maanaam mm-hmm. ga xaalis bi nag da xool kilo ceeb bu ne. Eh, ceeb bi ngay togg sa kër nag maam fàttali laa wax. ceeb bi ngay togg sa kër. ngay xayma waxuma ngay togg ceeb boo xam ne dafa seer. Hmm. naa damay génn muuru koor dama jënd ceeb bi gën a digg doomu déedéet. Hmm. ceeb bi ngay togg ci kër gi. nga xam ne seen waa kër moom la ñu añee. Hmm. ceeb boobu ngay xayma kilo ñaata la. Ah. ñu leen kilo nangam la. nga génn ci ñaari kilo bopp bu nekk ñaari kilo bu nekk kilo 300. kon bopp bu ne 600 lay doon. bu dee kilo 350 bopp bu nekk nekk 700. nga génne par 700 700 bopp yi ci kër gi yëpp. ba mu jeex nga daal di ko joxe asaka. bu fekkee ni sax waa dëkk ba tàndarma lay dunde tàndarma lay dunde tàndarma ngay génne. su fekkee dugub la ñuy dunde dugub ngay génne su fekkee euh, ceeb wala su fekkee euh, euh, ñebe wala li ñuy wax bele wala lu mu ci mën di su fekkee moom la ñuy dunde rek loolu la ñuy génne. bu dee fii ci réew mi Sénégal la xam nga ni ceeb moo ëpp la kon may waaye may su ko génne xaalis sam bu dee xaalis sax li ma la waxoon ngay def danga koy xayma. koo xam ne day war na la. te nga man ko. génnewoo ko danoo wax ni soo demoon ba jamono sax nga bëgg koo génne ab saar xa wax naa la léegi benn xadis boo xam ni yoonat dafa wax dañuy aj sa koor xam nga ni kenn bëggut a woor ba koor gi jeex nga ñàkk ko noonu. Mm. nag amul moom fu lislaam naa nan ko dóor rek nan ko nangam nangam amu ci moom mm. waaye daal. dana tax dana dana xajamal sa koor day xajamal koor. da koy xajamal da ko du setal. Mm-hmm. maam bu taxee li tax ñu koy def mooy tuxratun li saa imi mm-hmm. loolu la. Mm-hmm. maam day laabal kii woor nguur koor day laabal kii woor. maam ci lan ci rafas nga defan muy li nga defan ci ay eh, xuloo tuuti mm-hmm. ak li nga defan ci lenn ci ay di nga sante mm-hmm. ak li nga defan ci yenn yoo xam ne xëy na jot nga cee laal lu wóorta laa wa nga wax ci lu wóorta wax mm-hmm. yooyu lay setal ba set wicci moo tax eh, yonent sala sam ibnu abbas ne tuloon na ko noonu tuxratun saa'im la ba pare toomatun lil masaakin day laabal ki woor waaye nekk nag ak leel ci ñàkk moo tax ñàkk koo def musiba la waaw mbuuru koor day joxe ko day defar société ba pare day war ak mbëggeel ci biir nit ñi xanaa xamul maam faati ki nga jox mbuuru kar ren jox ko déwén mënatu leen noonu. ndax day xam ni li ñuy wax kuy raam la bokk. su amee ay oto dugal la ca. loolu moo tax te lislaam li mu gën a bëgg ci kaw mooy ay jul i bennoo ay jul i bennoo kon bokk na ci li mu wuru koor di jariñ day bennale ay julit day bennale ay julit ba pare itam dafa nekk muuru koor nekk na loo xam ni wëri koo jëggaani lan mooy jëggaani maam faati ma am muuru koor ci misaal sëñ Seexuna Njaay nekk nii nekk sama dëkkandoo ñàkk lool. ñaanaluñ ko dañuy joxe exemplaire. léegi ma war ko jox mburu koor ma jéggi ko ni Ousseynou Ndiaye sama xarit ma nga dëkk dëkk bu ñuy wax fële ca Kajoor benn dëkk ci dëkk Kajoor Saalum. waaye mooy sama xarit wala mooy sama mbokk ma jël mburu koor dencal ko fi léegi da nga koy gis ci paa yeeg mère yi génne mburu koor dama koy dencal diw ba mu ñëw déedéet. wurtaam ndax dañoo wax ni bala ñoo julli nga ko war a génne yonent bi nee na képp ko génne bu ñu julli jee ba ñu ab sarax nga maa amatoo asakam wur koor kon waroo ko jox mbokk te ku mbokk koo xam ni jigéen la soxla ko nekk fi joxoo ko kon bari na lu baree bari bari loo xam ne wuru koor mën na koo jariñ ci société bi soxna maam Faati ay yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñu waxan ni jigéen ju mën di doon suñu yaay sa moon ko nettali ndax xadis yu mel noonu sax yi cëpp yu jëm ci wàllu jigéen ak yooyu léeg-léeg Aysa nit ko wala kenn ci jigéen yonante sallallahu alayhi wasallam ndax ñoom ñoo koy laaj ci jamono yonante bi Aysa moo xam ne yonante dafa xam ni jigéen ju ci mën di doon dafa am lu yàlla gàll ci yow muy weer woo dugg am ngànt looy gis mu ne bu ngeen gisee ngànt loolee nag fekk weeru koor ñëw na bu leen woor na ngeen bàyyi ba ngànt la jàll ngeen sangu doog a woor bu leen jullee itam bu weer jàllee na ngeen fay koor ga te bàyyi julli ga kon lu war la hmm. wallahu taala alam waa soxna maam Faati yonent bi sa alayhi wa sallam suñu yaay Aysa dafa wax ni dafa wax ni koor bu ñëwee rek jigéen da ko war a woor bu ca gisee ngànt bu weeru jàllee na ko fay waaye julli moom jéggal nañ ko du ko fay. kon képp koo xam ne weeru koor jàll na da war a fay li nga xam ne am war a fay bor la boo xam ne da nga ko am war ko fay loolu rek la wallahu taala borom mooy li dox ci misaal Ousseynou Ndiaye mu amoon bor koor bu fayu rek loolu mooy dox seen diggante ak moom ko bor bi du ko wàcc ba karam xam ne war na caa fay ngant li boobaa tam wàcc ba karam koy fay loolu rek la waaye amul beneen atte bu yàlla di teg ci kaw jigéen ñi boo xam ne tegu ci kaw góor ñi ki am boru koor ak nga xam ne dafa wéradi woon ci koor am bor moo ko gis ngàtt rek ñoo am ci bor ni ko kii war a fay rek a fay waaye amul leen lu ñu gàll loolu moo wax ni fekkee bor bi yow yaa ko tey nga xam ni yaa nekk sa àddina rek bañ koo lijjanti woo ko lijjanti woo ba koor gi ni xis sa kaw ñëwaat su boobaa dañu lay yar da ngay woor weeru koor ba pare di def euh, euh, tooma maanaam di di leel nit leel miskin kenn bis bu ne nga leel nit loo xam dana ko regg boo dee ba koy fay maa bu weeru koor yi nga nekk nekk mm-hmm. yi nga nekk boo koy fay mm. bu jeexee ba nga war a fay la nga amoon ci abor da ngay woor bis boo ba dog jotee nga def toomatul miskin mooy leel am miskin ngir lan lislaam da laa bëgg a yar ngir li nga lànk ci ak yàlla ji nga lànk bañ ko joxe loolu moo tax loolu itam moo daan yi dal rek moo lay dal euh, am na ñu wax saani day def kafaara am ñu wax ne day xadaa rek mooy day fay waaye li gën a lëgg daal mooy da ngay def tooma hmm. boole ko ak xadaa mooy fay ba pare di leel miskin loolu mooy li ci wér waaye ndax leel gi sax dañ la ci yar rek waaye bu doon loolu duñ la ko def waaye la yar pour ëllëg nga bañ koo manqué waat wallahu taala ñi nga xam ne dañoo nekk seen coobare bopp yaakaar naa na question ma ko fii kii ay jamono euh, suñu ma ci Pakistan ba amee ñu ko fa def ñoom dañ leen a yar yoon am yar yoo xam ni du damay wax yax du damm wax naa ko si naaw suñu yax du damm mën a tuur waaye laa kuli xaan den yar ba nga xam ne lii day lu war dañ lay yar ba nga xam ne lii day lu war moo tax ñu lay dóor waaye nag nekkul loo xam ne itam sax euh, day xadd boo xam ne ko war teg sa kaw ni ku wóor ni loolu sunu borom bu feeñee képp koo xam ne mën ko ci yéen na woor képp koo xam nag dafa feebar wala mu tukki su boobaa weeru koor na ko ba karam muy tane wala ba karam muy jóge ci tukkiam ku lànk ko sunu borom subhanahu wa taala ëllëg sab addam ci kawalam lay dal loolu rek la na mën kii fekk ne état islamique lañ yor nag comme ni ko Pakistan yore sañ na président bi jël ay nit yoo xam ne day wër koñ yeeg dëkk yi ku war a toll ci woote fiibaru dal jot la ñu dóor la ay yar pour yar la loolu rek la war a doon ñu takk leen bu dee uutul kitaab euh, wala ahlu kitaab sunu borom may ñu takk leen muy ñu téere mos na wàcc ci ñoom yàlla may na ñu takk ci ñooñu waaye bu ñu leen takkee tam te tuubuñu comme ñun bu ñu dee du tax ñu donn ñu ñoom itam bu ñu dee duñ leen donn kenn du ci doon sa morom kenn du ci doon sa morom waaye sañ na ko takk nag waaye bu dee du ko doon moom itam bu dee woon kenn du ci doon sa morom wallahu taala alam ahlu kitaab ku mel ni yonent ñu bokk ci juif yi wala chrétien yi wala yooyu nga xam ne yàlla wàcce woon na ci ñoom téere ñooñu sañ nga leen denc sañ nga leen a denc donte bokk leen diir sañ nga leen a denc waaye kenn du ci doon sa morom wala taala alam ñi téere wàccu loon ci ñoom nag suñu leen takk moom waaw kooku day su fekkee ni bi mu yëg euh, bi mu yëg ni euh, julli gi bi mu yëg ni euh, jàpp koor gi jot na mu xool xam ni ñu ngi julli suba te mu leer ko ni suba lay julli day kóot na bi boobu woor ko ba koor gi ba ñu ba weeru koor jàll mu fay bis. du kafaaru def dara waaye day fay bis nag ndax bis boobu moom da koy leer ni amu ko. du bis boo xam ne bokk na ko ci koor gi. su koor gi jàllee day fay beneen bis. waaye nag day continué woor ba bis xam nga day am ñoo xam soxna ma fa naa fiq danaa man ginnaaw bis bi na ma rek naay lekk naay naan déedéet. waroo lekk waroo naan da ngay nga dogoon ak ñëpp. bu weeru koor jàllee nag nga fay beneen bis. wala waaw loolu tam ay wax la cee rot ndax dafa am xadis bu ñëw yonante bi sallallahu nga lekk wala nga naan te tëyoo ko continuer sa koor yàlla moo la lekk loo moo la naan loo boo waree jëru ngay fay waaye bu dee ngir mi ne mu ngir imaam Malik dañoo wax na dog bu weeru koor yi jeexee da fay benn bis wallahu taala alam ngir imaam Malik la nekk ndax Sëñ Tuubaa dafa wax ne aleykumul fiqh bil malikiya yéen samay taalibe ni ngeen roy ci imaam Malik te imaam Malik moom dana wax ni na nga continuer koor ga waaye bu weeru jaalee nga fay benn bis mm-hmm. kon nan def loolu ah soxna Maam Faati kooku ci um dañ ko war a yar ba pare dañu ko war a yar mm-hmm. ji nga dañ lay moytalikoo sa soxna ci bëccëgu weeru koor ndax seytaan dafa bari doole te góor góor la jigéen jigéen la kenn ku ci nekk da ngaa war a am nooy dunde wax naa ko dafa am ñu mën a téye seen bopp am ñu mën a seen bopp am na ñoo xam ni lu ñu gis ci jigéen rek dañuy daal di bëgg a yëg seen bopp am ñoo xam ne bu jigéen doon def fii ci ñoom yaramu neen tam faalewuñ ko léegi nag loolu lépp nag yow boo xoolee sa ba xam ne mënoo maîtriser sa bopp kon da ngay wéet ak sa soxna da wéet ak sa bopp ci bëccëgu weeru koor bul jigee sa soxna bul jige sa soxna kooku dañ ko war a yar ba pare sax nag ndax ginnaaw xam na ne moom bu toog ak soxnaam def musiba kon waru du am soxnaam desaan ba koy tere bu fekkee nag nekk na ak soxna sax te yu ko xay na ba ba lu mel ni mës yu génn wala waddu yu ah su boobaa nag kóot ne weeru koor jàllee mu fay bis fekkee ne moo ko tay di def lu ko neex ba génne mànni ala kuli xaali bu yoori jeere kafaara def ñaari weer yi tegaloo lay woor wala mu leer juróom-benn fukki miskin wala mu goreel ab jaam wallahu taala alam ala kuli xaalin mooy yàlla ga du yoon xam nga Sénégal fu mu toll nii da gis koo xam day bari alal amoon doom joo xam ne doom yoon bu ndee ba ca miraas ma ñëpp di xomtoo ci mbiir mbokk yi naa est ce que diw dina doon ak doon te lijjanti woon ban mooy yàlla ñoom ñaar ba xam waroon na leen caw yari yoon wala kenn ku lijjante doom ja dinaa lëng ba yor kër ñu ne te loolu war a njëkk lijjanti waaye soxna maam Faat ala kulli xaalin mooy euh, ki nga xam ni mooy na yàlla muy ñaari célibataire yi mooy yàlla kenn ku ci nga xam ne téeméer yar war na la téeméer yar yooyu tuubul bàkkaar ba xam nga lan la xadd la bu lislaam ni leen ko teg oustaz Mbaye Dia fekkee mooy na ak kenn fekk célibataire la ca jamono ak kooka dañ moo war a woo tóornu téeméer yar waaye téeméer bu mu tax ma ne kon bàkkaar wàcc na ci àddina xam nga bàkkaar lan moo koy tuub ci yàlla téeméer yar nag war na ci bu fekkee état état islamique lañ yor ñu yóbbu ko ci ay nit ñu dóor leen téeméer yar pour xadd bi lislaam ne lii moo war a dal seen kaw ñu dóor leen ko jeex na waaye amuñu yaqin ni bàkkaar wàcc na leen bàkkaar li koy wàcce mooy tuub tuubu ilallahi tawbatan nasuha yàlla wax na ngeen tuub sa borom donte dóoruñu la téeméer yar sax te nga wéet tuub ni yàlla lii doot ma ko def yàlla mën na laa jégal sa bàkkaar wallahu taala alam waaye julli suba ala la mën fekk waaye nag euh, la du woon yoon nag mooy di xaar ba jant bi di dàng bis bu ne loolu moom du yoon léeg-léeg nag rëcc mënta ñàkk ndax biddanti kenn ko dañ ko def waaye nag ni dàng nelaw xëcc sa mbaraan rek dégg salaatu lànk loolu ca amuurul yoon waaye ginnaaw loolu daal na ko buy fay day daal di fay comme ni julli gi demee woon rek lay daal di faye ñaar rakkaay suba yëpp dañ koy biral xurwat ba rek nga ciy daal di yalu wallahu taala alam ndax euh, ñu bari ci jigéen ñi euh, ña ngi koy faral di posé Salman Fati jigéen dafa am mubtada am moxtaaratun am mustahaada dafa am koo xam dafa yàgg gis mbaax am koo xam ni da koy doog a gis am koo xam ni bu gisee mbaaxam mbaax mi day arrêté tuuti continué di dem xalaa kulli xaal lu ci mën a xew mooy su fekkee yow xam nga sa mbaax ñaat fan lay doon xam nga juróom fan lay doon wala juróom benn fan lu ci man di doon nga xam lii nga taamoo aadoo gis waxtoo saa yi mu continué continuel ba tey mbaax ma continuel ba karam muy am fukki fan ak juróom fukki fan ak juróom foofu la mbaax yam lu mu bari bari da ko paase. bu ko paasee dañuy wax ne na nga sangu te dem sa médecin tey julli tey woor te dem sa médecin fukki fan ak juróom. su fekkee nag moom xam na lim euh, mbaa xam commencé nekk mu dem ba sangu nga xam tey jii sangu na ba pare ndeysaan yàlla dogal mu dem ba ngoon mu gisaat deret mu sanguwaat woor demaat bu suba mu gisaat deret wala demaat ba jënd so mu gisaat deret ñaari fan yëpp da koy fay. da koy fay da koy fay. ndax deret ji ci moo arrêté gul dëgg-dëgg. dafa arrêté gul. da koy fay yàlla nag noonu. nattu léeg-léeg da ñëpp lay dal ndax dañu wax ni saa yoo xamee ni dem na ba sa deret yaakaar nga ne ma ngi war a jeex am na benn ndox bu weex buy génn ci jigéen mooy wane ni ndox bi jeex na tàkk ndox bu weex su ko defee booy bala ngay tëdd da nga war a jël ti sa coton xool sa kanam boo ko xoolee boo xoolee mu tooy nga xam ni deret ji des na soo ko xoolee mu wow nga ni kon naa fas naa yéenee woor suba waaye boo dee ba noddu fajar noddu gu njëkk jëlaatal coton nga xoolaat ba xam est ce que der génnaat na ci guddi gën biir soo ko xoolee sa kanam wow mën ngaa continuer daal di donte sa sax nag donte sa ngoogoo yéeneel woor ci bis boobu bu ko defee nag heure yo mën na sangu ci bëccëg gi rek mën ngaa sangu waaye moom yéeneel koor côté da ngay am koor waaye nag bu sutul moom bu baax nga yàkkamti ko da ngay daal di fay kon ñaari fan yooyu moom da koy fay su fekkee ni eh, dafa woor ba yàgg yi fi dikkal ko mm. bëccëg googu da koy dagg donte laax deux minutes des ci dog mu dikkal bis boobu da nga koy fay bu koor gi jàllee donte deux minutes ci un minute wala ay seconde sax hmm. bis boobu da koy fay bu jàllee ah. su fekkee yaa ngi ci weeru koor itam fukki fan ak juróom xam nga mbaax dañ ne du paase fukki fan ak juróom bu ko defee bu paase fukki fan ak juróom sangul boo nattee ba mat fukki fan ak juróom hmm. sangul hmm. julli tey ko ne sa koor donte deret yaa ngi génn contenir sa koor te dem hôpital deret jooju dereti feebar waaye du dereti mbërëg loolu il faut ñu xam ko bu ma te rek dereti feebar waaye nekkatul dereti mbërëg moom bu boobaa day daal di sangu di julli di woor di dem hôpital nag ñu xool deretam jooju jan deret la waaye yooyu moom ginnaaw fukk fan ak lu ko paase mu koy woor deret ji génn ndax loolu ci bi la duut ko fay léegi mën na ko rek waaw ci moom nag mooy ndax yoonu saala sa dafa xam ne xanaa xamoon ni soxna ma faati nit ki saa yu séq soxnaam daa war a sangu lu doy waar la nag fu ngeen séqee rek da ngaa war a sangu boo ko soxlawaatee séq ak moom sanguwaat séq moom sanguwaat gi léeg-léeg mën koy yoon loolu la ñu bi jàngal te mooy li war su fekkee mënoo ko boo séqee moom nga jàpp foo nga jàpp waaye alaakulaa bu loolu mënut nag ne nga xam ne séq naa moom te waxtu wi euh, yàlla dogal na not na ko ba fanaan na ba bët set muy doog a xaat ne kër moom sangoogul amul benn problème koor ga moom baax na la gën a nag moom bi jàpp waaye koor ga dara sikku ca am na koor ni ko ñëpp amee waaye la gën a nag mooy mu sangu avant fajar di jot waaw yoonu saala tam dafa wax ni ngeen sangu su fekkee mën leen a sangu nag ngeen jàpp pour woyofal sobe si sobe si leen bëgg a woyofal moo tax mm. waaw ne bu fekkee nag comme kuy ragal ndox la wala ndox mi sedd lool ba doo ko man mu ne nga jàpp boobaa njàpp mi dana woyofal sobe si mm-hmm. nga doo ko mën a siqaar sa soxna mm. waa loolu de ki ñu koy may mooy ki nga xam ni ki nga xam ni mas na ko nga xam ne moom nu mu sangoo baax na mooy ko xam dem na ba nekk mag jàngut xamut mujj nag mu ni damay bëgg xam samay farata di jéem a jàng waaye mel ni xel mi moo nëx loo ko wax tey mel ni lu di cim ndox jéem na ba sonn bëgg na bëgg gu waaye daal xel mi baaxul kooku nag mujj ne ko nag léegi boo dee sangu farata na nga yéene yow daal la kuli xaalin yéene ni yéene maa sangu farata noo ko defee baax na ndax dangaa ngaa jéem ba sonn waaye koo xam da ngaa ci sën nga xam ne yaa ngi wut xam nga ni wutab xaalis am na nu muy defe mhm. ma ngi jaali yaa am ndox ma ngi def yeneen mhm. a dem ci ku xam mu mhm. dafa bëgg rek ñu xamal ko noonu alaa kulli a dañ paset ci yow wicci yoon sala sam jàngal a xaalin sangu farata lu war ci góor war ci jigéen muy kuy gént ku mën di doon war na la boo xasee nekk célibataire rek war nga xam ne sangu farata kooku de amul julli ndax amul jàpp dafa bàyyi farata xam nga farata jàpp juróom-ñaar la te bàyyi la ci benn ponk mu yéene la sëlëm sa kanam sang say loxo ba ci say conco ak euh, euh, masaa sa bopp dem bi ak rag say tànk ak gaaw ngay gaaw ak jooñ ngay jooñ muy juróom-ñaar yooyu mooy farata jàpp léegi nag su fekkee bàyyi na ci benn rek njàpp la yàqu na amatuñ farata yi boo ci bàyyi farata moom lenn loo ci bàyyi rek loola yàqu moo xam farata julli moo xam loo ci bàyyi rek loolu daal yàqu jàpp da nga yéene boo yéene fi ngay raxasi sa kanam foofu sax nga yéene xam nga ñu bari bu ne raxas seen loxo nii rek pour raxas boobu du dara loolu sunna la su yoon saa daa def baax na waaye dañ ciy xool ba xam ndox mi am na benn taq-taq war nga xool def ko ni solo xool ko bu dee galax na ko bee da ngay mi saf na wala saful am na xet wala amul xet yooyu yëpp duggagoo ci farata ci sëlmu bi ci ngay dugg ci farata bi fi ngay sëlmoo nag foofu nga yéene yéene ji nag soxna maam Faati loolu ñuy wax mm. naa duñ ko ñeen ñi waxe bisimilah yéene na maa jàpp sa xor rek ngay wax ba nga jëlee sat la wuti kii ba rek teg nga galax ndeku nga sarax ndeku nga yaa ngi sëlëm sa kanam fi ngay sëlëme ne rek mm. ah waxal bisimilahi rahmaani daal di mm. wax sa yéene ci sa xel ci sa xel rek léegi nag boo yéene raxas sa kanam say loxo ba ci coonca yi masaa sa bopp dem bi rek rak say tànk ba ci du juri du juri mooy feni boo paree ak gaaw gi ngay gaaw boo koy def ndax doo jàpp di jàpp ba yàgg soxna maam Faati Kebe sama kër may waxtaan ak moom neex ma continué jàpp waxtaanaat ak seexu naa ba neex ma continué sama jàpp moo tax ñu koy bañ kon fawru gaaw da cee bokk gaaw gi nag waxuñu patam patam déedéet pour daal mooy njàpp bu bu ko arrêté ak jonji njàppi doo sotti ndox rek dem da nga koy jonji ak dal ko jonji ak alfawru gaaw muy juróom-ñaar yooyu ñooy farate njàpp ku ko bàyyi nag sa njàpp yàqu te njàpp bu baaxul julli mënta baax wallahu taala alam waaw wàññi gi ne day fekk mu doon waxtu woo xam ni wañet faa mën a wàññi julli lu mat juróom-ñett fukki kilomètre lu mat juróom-ñett fukki kilomètre ci misaal nga jógoon Touba gi jëm Kébémer wala nga jógoon Touba jëm Ngaay wala nga jógoon Touba jëm Dakar yu mel noon wala Ndar nga xam ni ëpp na juróom-ñett fukki kilomètre yam benn bu ne bu ko defee waañ julli war na la bi ngay jógee ci kër gi julli nga waxtu tisbaar wala julli nga euh, suba nga dem ba ci yoon wi wax tisbaar jot na fekk fa nga jëm fa war a juñ bu boobaa mën ngaa wàññi ci yoon hmm. nga jëm rek juróom-ñett fukki kilomètre hmm. su boobaa loolu war na la hmm. amaa nag su fekkee dëkk bi nga jëm moom ay daaru moxti gii la wala taay fa la yoo xam ay fanweeri kilomètre ak nangam la su boobaa koy fay comme boo nekkee sa kër ni ngay fayee day noonu la julli ko demee woon waaw kooku day dégg naa sax ay wax léeg-léeg waaye alaa kulli xaal bëriwut lu mi am ma ngi daal koo xam ci misaal xëy na sa soxna feebar a feebar boo xam ni mënta woor nit dina mën a bañ a pare mën a sëy di. xam nga wax nit dina mën a bañ a woor ba pare mën a sëy. fekk waa tukki nga xam moom yàlla da koo may mu bàyyi koor ginnaaw dafa tukki tukki bu sori. tukki bu ma la waxoon distance bu sori comme distance koor nag ak distance tukki ñooyam. maanaam distance bi ngay am booy tukki. wàññi julli. distance boobu ngay am itam booy woor waañi koor xam nga wala mm-hmm. juróom-ñett fukki kilomètre lu ko romb jëm kaw rek mm-hmm. su boobaa sañ ngaa wàññ sa koor mm-hmm. léegi waa ji ñibbisi na ci bëccëg gi xam nga wóorut ndax fa muy jóge tukki la fekk jabar ji dafa feebar feebar boo xam ne mënut a woor ñoom ñaar kenn wóoru ci mën na seqante wala mu ñëw fekk jabar dafa gisan waaye julli nañ soo pare ngaat li doog a dañ bu ko neexee ma ñëw séq ci bëccëg gi loolu ñoom ñaar nit ña ngi ci weeru koor waaye ñoom ña ngi ci weeru koor waaye kenn la ci koor wóorut kii xëy na daa feebaran ba koor waru ko waaye dafa gis ngaat ba ngaat li doog a jeex kayitam tukki woon bay ñibbisi nga xam ne wóorutan bis boobu sañ naa séq ak soxnaam ci bis boobu jërëjëf soxna kontaan naa xam naa ni xaw nga maa solo tuuti sax <laughs> waaye ñu ngi sant baax a baax a baax mm. ci jotaay bi ndax jotaay yu am solo la te war na yaatu mm. ñu ngi lay sant baax a baax itam ci ni nga taxawoo jotaay bi mm. ak pëstef bi ak yéene ji mm-hmm. ak question yu am solo yi nga xam ni du yow yaa ko soxla waaye askan wi ñoo ko soxla uh, loolu rek bokk na ci am solo. kon ñu ngi lay sant di la ñaanal yow suñu xarit nga suñu soppe nga. Euh, yàlla na yàlla sàmm. ak sa xarit sa naataango soxna Assi la. tam suñu xarit suñu soppe Seydina Ousseynou Ndiaye. moom itam nga xam ni lépp mooma. dañoo yàgg lool. waaye di sant bu kilifa kër gi. ak ñi liggéey ci kër gi yëpp nag suñu mbokk cameraman yi. Euh, buñ tuddee sëñ Cheikhouna mi rek tudd nañ ñi ci ñëpp. ak euh, sëñ bii ka moom sama kii ndax sama soxna laa sant ka moo tax mu bëgg ko lool waa ji. dafa tabaaraka waaw macha allah fa tabarakallah di sant mbokk yi sëñ Fallou ñoom ñi macha allah fa tabarakallah ñoom ñëpp rek camaraman ñu leen siyaar di leen sant ak waa kër gi yëpp tey rafetlu émission bi di rafetlu jotaay bi tam di leen wax ne rek lépp lu fi jub suñu borom la neex waaye lu fi dëng rek ma teg doomu aadama waaye in uridu islam ma tantu wa ma tawfiqiya illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala